finale poids léger Ndiol bu Sana Doudou Ba siyaayam Ali Ba siyaayam maa lay siyaar fii ci Fimela lay xëyee ñoom ñaar woote avec Dior Papay TV TV coow lee bëri nii rek mais moom mooy le père de TV TV Thior production suñu papa ndeysaan jiitu si liggéey bi yàqu si dara bu ñu amee fit tey ku ci mel ni moom tax na suñu papa Thior caméra ga ñoo tiit te ndaa Thior awee ga ñun saax Kubas Ndiol Ndiol plaqué na ko Ndiol daan na Doudou Bass yaakaar leer nañ kay